El Hadj Babacar euh, nekk fii ci direction régionale bu poste euh, dëkk Thiès di santaat yàlla bu baax waaye di julli ci yonentam bu tedd bi ci tey xew-xew bi nga xam ne tey moo am fii ci direction bi tey ñu am ci remerciement boo xam ni ñu ngi koy jël di ko jagleel ki nga xam ni mooy suñu directeur régional di élage Hadj Abdoul Aziz Seck ci li nga xam ni mooy conférence mu tombeek cinquième édition rawatina moom it mu jël ko teg ko ci ki nga xam ni moom mooy le directeur général di Mouhamadou Diéyti mu yebal fi une forte délégation El Hadj Talla Mboup dirigé ko ànd ko ak délégation le directeur le directeur des ressources humaines bu direction générale bu poste Cissé yabal ki nga xam ni mooy chef département personnel di Yoroba tey mu ñëw teewal ko fi tey képp kuy postier di postière ci direction bi teew na rawatina aussi receveur yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci yeneen gox yi représenté représenté fa direction régionale bi ñoom ñëpp teewi fi le président amical des receveurs di Makhtar Thioun teewal leen fi tey El Hadj Idrissa Gueye nekk conférencier bi wax dëgg yàlla mu waxtaan fi ci wàllum social waxtaan bu mucc ayib waaye di santaat aussi ñi nga xam ni ñoom ñooy poste postier yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci direction bi muy jigéen ñi di góor ñi di Thiès RP di direction régionale ci kaw DRP rawatina aussi di sant staff bi nga xam ni tey mooy staffu social bi ma diriger ko ànd kook samay naataango di Abdoulaye Papa Abdoulaye booy yor li ñu naan muy trésorier bi Demba traware nekk ci organisation bi si nekk ci organisation bi rawatina aussi Abdoulaye Cissé nekk premier vice-président Sodo Xuma nekk secrétaire général bi tey fierté la ci possier yi li nga xam ni tey moo am fii muy conférence bi di ci bégal ñëpp di santaat possier yi gërëm leen bu baax gërëm direction bi waaye di gërëm suñu directeur régional El Hadj Abdoul Aziz Seck ànd koog adjoint muy Sila Diaw tey suñu xol sedd na suñu xol daj na di santaat yàlla bu baax yàlla mu ñu booleek El Hadj sa gay ba tey mu nas ki nga xam ni tey muy El Hadj Mor Gueye sopp na bi ñëw jàppale ñu ci bis bi. ànd ci dax lan yonent bi rek moo ko ñor ku xam Mor Gueye sopp na bi xam ni muy om social waaye mu tombe ñi nga xam ni tey muy direction bii di def sociale tey mu ñoo participer ci enveloppe bu dul boo xam ne que ni wax dëgg yàlla Mor Gueye ñu ngi koy sant di ko gërëm yamale ko nag heureusement ci ñun kese moo tax tey lii li ko sabab mooy leen rek la mooy directeur régional bi mu ñëwee dafa njëkk a samp social fii sociale boobu nag moo indi lii maanaam tey kenn ku ci nekk dañ lay dagg ci kof à la source par rapport di ko ti retiré par fin du mois moo tax tey loolu koppar boobu moo jur lii tey ba tey ku xewle moo xam naqar la moo xam bànneex la dañu fay dem pour joxe suñu ndokkeel ci wàllum lu mu mën a nekk kon loolu soo amee tey jaaraama El Hadj Abdou Aziz Seck waaye jaaraama aussi le receveur principal muy sëriñ Babacar seen wax dëgg yàlla sant nañu gërëm nañu parce que nag nii la nii la ñu yàgg mel maanaam kaf ree dund bànneex loolu lañu mel waaye di ñaan ki nga xam ni moom mooy le directeur général fi nga xam ni tey moom la fas yéene yeggale mbébét ci post bi ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko mu mottali ko ak jàmm ndax dem nañ fa ba mu wax ñu yéeneem ci li nga xam ni mooy poste loolu nag wax dëgg yàlla kàddu la yoo xam ni mënuñoo ko ñàkk ba ñu wax ndax bañ fa demee seedeel nañu loo xam ne que ndax bañ fa demee lu mu ñu wax mooy que ni yéen de wax dëgg yàlla gis nañu ni lii ngeen def njëriñu post la fi poste toll ngeen taxaw ne dañ fiy def conférence conférence mu tombeek bisu yentu yàlla Muhammad tombeek ci weeru koor wax dëgg yàlla am na ci loo xam ne tey bu ngeen koy def kon moom lañ ko defal mu ñaanal ñu ci wax dëgg yàlla kon tey dañ koy ñaanalaat aussi fi nga xam ni moom la soxla post ba jëm fa yàlla na ko ko yàlla yombal di sant postier yëpp di sant staff bi ma nekkal di sant jigéenu poste yi di gërëm ñëpp tey amicale de femmes ñëw nañu bu dakaar amicale des femmes bu Thiès ñëw nañu kenn manqué wul tey syndicalistes yi ñëw nañu moo xam SNTPT ñëw na wax dëgg yàlla site poste ñëw na wax dëgg yàlla tey kenn manqué wul daayira yi ñu bëri invitation yi kenn manqué wul di sant Omar honorable député a Sène di ko sant bu baax a baax a baax a baax moom tamit sant ko bu baax gërëm ko di gërëm ñëpp di sant ñëpp. ñëw na pos ànd ak waa amical bi DG resevoir leen ñoom ñoo ngi toog DG mi ngi toog maa ngi toog ñu wax. bis bi yëgal ko ko mu rafetlu ko lool ànd ci ak ñoom yëkkati as tuutam lu mu néew néew def ko ci bis bi Babacar aussi rafetlu ko mun ma koon taala talaata incha allah wax ma ko fàttali ma ko nu ànd ci benn démb 6 bi ma toogee ci bureau baabakër bii laa def en direct ak moom Babacar. boobu 18 heures maa ngi ci bureau DG toog mun ma waxoon naa la di ne ñoom ñooy ànd dem Thiès mais kër gi toll na foo xam ne ci ay itte ci ak ay soxla foog ma taxaw suba incha allah naka tey jànkoonte jàkkaarloo ak itte yi ak soxla yooyu pour njëriñu kan njëriñu postier yi defe naa ni bu ma waxee loolu yéen postier yi li ñuy wax ñaar xam na nañu waaye ñetti xamul xam ngeen li ma leen wax. Euh, kon Babacar DG mi ngi lay nuyu mi leen di sant mi leen di gërëm di leen jaajëfal euh, El Hadj Idrissa defa naa ni wax nañ ni kër daal boo fay dugg dangay ngay jaar ci bunt ya kër. fii nag buñ fi egsee cees bunt bi mooy El Hadji Abdoul Aziz c'est le directeur régional des postes de Thiès région bi yëpp moo ko toogal fii directeur kon bu ñu ñëwee eh, ñun kàddoom moo gën a féete kaw sunu kàddu kon El Hadji Abdoul Aziz ñoo ngi lay nuyu di la sant di la gërëm nuyoo boobu nag buñ ko tegee sa loxo jotale na waa Thiès yëpp ndax yaa njaboote ñëpp La présente rencontre est une conférence religieuse animée par l'éminent islamologue Elhaj Idrissa et dont le thème porte sur l'entraide en l'islam. Vous me à l'entame de mon propos de faire une brève présentation de la direction régionale des postes de Thiès. Elle s'étend sur la région administrative de Thiès et compte 35 points de contact qui s'établit ainsi qui suit. 18 bureaux de poste de plein exercice, 10 bureaux annexes et 7 guichets annexes. En termes de personnel, la DRP de Thiès est la deuxième après celle de Dakar avec 514 agents, dont 231 femmes et 200 83 hommes. Donc euh, la parité est presque parfaite. 45-55. Malgré la crise sans précédent que traverse notre entreprise, la DRP de Thiès a connu une croissance positive de 0,63% pour l'exercice 2022 par rapport à celui de 2021. Pour l'exercice un objectif de croissance de 16,83% est fixé. Nos produits phares sont les colis postaux, la poste aux lettres, entendez par là les affranchissements et les boîtes postales, et le Jotnancy. Monsieur le représentant du directeur général, soyez notre interprète auprès de ce dernier pour lui dire que depuis sa nomination à la tête de la poste, le 12 octobre 2022, Il n'a ménagé aucun effort pour sortir notre chère entreprise de la crise aiguë qu'elle traverse. En effet, dès sa prise de service, il a su rassurer le personnel qui s'interrogeait avec beaucoup d'inquiétude sur son sort. Aussi, il a réussi à stabiliser le paiement des salaires des fonctionnaires et des pensions des retraités affiliés à la Poste. Par ailleurs, la démarche participative et inclusive du directeur général, M. Mohamedou Djeité, est saluée par tous. Fort heureusement, il a fait sienne l'assertion selon la, laquelle la poste ne se fera pas sans les postiers. Grâce à son travail ardu en termes de partenariat, il a réussi à faire revenir la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour le paiement des bourses de sécurité familiale. Mieux, avec des réunions préparatoires regroupant tous les acteurs, y compris les DRP, il a réussi le challenge d'une opération de paiement de deux trimestres sans accroc et en un temps record. Serions-nous tentés de dire, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Pour rappel, la DRP de Thiès polarise 34 900 bénéficiaires. et pour le paiement en cours, le montant total alloué aux ayants droit par la direction régionale s'élève à 1,35 milliard. Aussi, à l'actif du directeur général, il me plaît de citer, sans être exhaustif, le, le projet de partenariat avec l'armée nationale, le partenariat avec APIX, le partenariat avec le startup Smart Miles, avec la plateforme GoPost pour le redressement, la relance et le développement de la poste à l'horizon 2008, il a opté pour un plan stratégique d'expansion dont la conception se veut une coproduction de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ce plan a pour vision devenir l'opérateur postal leader dans la sous-région. Cette vision est guidée par trois orientations stratégiques. Développement de l'offre de services, transformation digitale de la Poste et amélioration de la gouvernance institutionnelle du groupe La Poste. Pour réussir, pour la réussite des missions assignées à Monsieur le Directeur Général par le Président de la République, la DRP de Thiès est prête à jouer pleinement sa partition. En effet, elle est la deuxième DRP en termes de poids relatif parmi les 10 que la Poste Aussi, c'est une DRP caractérisée par le dynamisme des receveurs et sa cellule commerciale qui a initié tout dernièrement le concept nouveau, les mardis et jeudis de la poste. Monsieur le Président de l'Amicale des postiers de Thiès, Monsieur Babacar Diallo, pour ne pas le nommer, à travers vous, j'adresse de vifs et chaleureux remerciements à l'ensemble des membres de la dite amicale et de manière générale à tous les postés de la circonscription postale de Thiès. Une mention spéciale est décernée aux receveurs qui vient des différents bureaux ainsi que leurs agents. Monsieur le Président, vous avez réussi le pari de la mobilisation. Pour cela, vous et votre équipe méritent une salve d'applaudissements. pour paraphraser Maître Ablaye Wade qui disait à Karim, je dirais à ta maman que vous avez bien travaillé. Mais Babacar, étant un polygame, je dirais à vos dames que vous avez bien travaillé. Votre amical, Monsieur le Président, participe à booster la productivité des agents, car vos actions à haute portée sociale font lésion. En effet, lors des événements heureux ou malheureux touchant le personnel, tels que le mariage, baptême, deuil, maladie, sinistre, affectation ou départ à la retraite, vous apportez un soutien moral et financier à l'agent concerné. Ainsi, vous participez à sa motivation et par ricochet à sa productivité dans l'entreprise.